di rakk ci Cheikh Mamour Insa Diop xam ngeen nag euh, fi mu nekk nii ñu ngi waajal événement mag boobu nga xam ne dañ koy amal at bu nekk 31 décembre gam gu mag googu ñu fas yéene incha allah nag kon waxtaan seeg moom lu jëm si wàllum organisation beeg yi ni mel waaw balaa muy sori rek kon xam naa dama koy bàyyi mu nuyonteeg mbokk internet yi Cheikh Babacar ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay fay Coumba Ndoffène macha allah. 72 heures incha allah moo des ñu jëm ci gàmm gu mag googu nga xam ne kon euh, ñu ngi koy waajal xam naa lu njëkk dama lay laaj lan moo tax mu doon amee fële ca Liberté 6 ren ñu indi ko fii nii euh, ci Nord Foire. waaw ah, auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi allazi amara bi tazkir fa xaala wa fa inna zikra tanfaul muminin salaatu wassalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayduna muhammad ibnu abdillah wa ala alihi wa ashaabi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum ah, salaam allah ñu ngi lay nuyu di nuyu itam Abdourahman Diallo di nga bi nekk ci caméra bi di fas yéene leen gërëm avant tout mhm. taxawaay ndax chaque année su gàmm gi jotee Abdourahman euh, di ko baax nga xam ne ñu ngi xamante ci jàng ak jàngale mu sàmm coloré bi nag ba tey waaw ñu ngi kontaan tam ci yow Ndofène bi ñu waxee ne yaa ngi nam ci daaral Quran <laughs> bu Seyda Mariama ñas mm-hmm. ah loolu moom vraiment mbégte bu mag la ci ñun waaw macha allah gàmmu 31 décembre bi nag yàgg na am mm-hmm. euh, lieu yim njëkk am mooy bopp en 2002 euh, la tàmbali. bopp lañ ko njëkk a def yaane boobu Cheikh Mamour Aïssa moo ko defaral boppam hmm. eh, ginnaaw loolu itam am na ci HLM Grand Yoff eh, gàmmu boo xam ne El Hadji Moustapha Guèye président des imams et di Sénégal yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko moom it gàmmal nañu ah. waaw ginnaaw loolu nag la commencé am liberté 6 déplacé yi koy déplacé yëpp nag mu ngi nekk en fonction ñu gàmmu gi di yaatoo place yi di xat ndax Liberté 6 genn wàllu terrain bi lañ daan jël mujj gi ñu jël ñetti xaaj yi mujj gi ñu jël ñaari camp yi ba léegi ñu def ko terrain gazonné waaw comme def nañ ko terrain gazonné nag ren moo tax ñu ñëw fii Nord Foire fas yéene defar ko defal ko fii mhm. incha allah loolu daal mooy sabab bi ñu toxalee lieu bi mhm. waaye itam di nuyu ak di gërëm ki nga xam ne mooy sunu sëriñ te ci ndigal la ñuy waxee lépp muy Cheikh Maodo Sadio. incha allah waxu laay nga xam ne dëgg dëgg taxawaayam ci diine lislaam ah, tarixa bi ñëpp xam nañ ko. Hmm. waaye di gërëm itam sunu xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass macha allah nga xam ne yàgg nañu gunge ci gàmm bi macha allah. incha allah alhamdulilah. 72 hmm. eh, heures la wax naa ko sànq moo ci des ana tey fan ngeen toll ci organisation bi. waaw alhamdulilah. Euh, léegi alhamdulilah mën naa wax ne lépp pare na ndax li gën a am solo ci guddi gi waxtaanu gàmmu gi Cheikh Mouhamadoul Mahi moo ñu ko tànnal muy thème bi mhm. wa maa muhammadun illaa rasulun thème bi taxaw na bu pare ñu war a waxtaanee ci xalaat thème bu am solo ginnaaw loolu itam lieu bi ren Nord Foire la fii ci terrain de football bu Nord Foire donc yéen dem ngeen fa fekk taay bi commencé nañ mhm. liggéey bi ak leneen ak leneen don de sang war am ci bés ba comité santé bi annoncé nañ ko ba pare suba sa kaamelu alxuraan yi ñu war a wàccee am na yu ñu wàccee ba pare bëri na am na yu ñuy mottali ci bés ba incha allah loolu yëpp man dinaa ci coordonné fi ñu toll naa presque li tubaab bi di wax tout est fin prêt <laughs> tout est presque fin prêt daal <laughs> eh. pour xaar bés bi euh, bëgg naa laajit euh, soit le 31 décembre bi ndax ku ne xam na ne 31 décembre moom fii ci Sénégal am na luñ ci miin rawatina ci Ndakaaru ngeen jël 31 décembre euh, def ko jëfle ko bésu gàmm lu waral mm-hmm. soit moom la. waaw boobu toujours dinañ koy faral di wax parce que 31 décembre bés bu doy waar la waaw bésu àddina la bésu foo la bésu caaxaan la <laughs> bésu sànku la sax ñu bëri fa lañ jaaree def luñ mës a def. waaw bés bu la boo xam ne ni koy waxee rek dérive dérapage dafay bëri ci dëkk bi mm-hmm. waaw ni ma ko waxee ci yeneen plateau yi Cheikh Mahamar am responsabilité bu mag a mag a mag ndax moom jikkoom dafa rafet te it ndaw li rabbaani waxoon rek te toujours moom lay wax alxayru kulluhu fi shabab loolu la moom xam-xam bi waxoon mu ne lu baax lépp mu ngi ci ndaw ndaw dafa baax mm-hmm. te loolu dañ ko war a sàmm waaw te képp koo xam ne nitu diine nga ay millier de jeune nekk sa ginnaaw loolu euh, foog nga sàmm ko te 31 bii bu ñëpp toogee seetaan hmm, dëkk bi dina tàkk hmm. te nag ku nekk yaa ngi bàyyi sa xel si sa njaboot moo tax nag mu ne comme dama yore ay jeunes yu ma topp bëri lool am na sax mag ñu ko topp dëgg-dëgg waaye nag comme mbooloo ndaw dinaa leen dajale ñoom ñëpp guddi gi. ba bër set ñu déglu sira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? waaw déglu xam-xam déglu lu baax ak kaamilu alquran yaag yëpp yaakaar naa du lu yomb nag ci jeune <laughs> ndax ni ma ko waxee rek bari na jeune boo xam ne boo ko doon fay cent mille ne ko jumal ci gàmmu day bañ waaw waaye nag suñu sëriñ dafa waxoon ne ay yaa naasu xallul xazla wax fu muhammadan way laa taraw ni dahra jadda baraay bàyyi ña sax ne woon yéen nit ñi eh bàyyi leen seen caaxaan te ngeen topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen toppul yonent bi man bàyyi naa leen ah yàlla bu ñu bàyyi ñes bàyyi <laughs> moo tax nag ñun sañu ñëw dem feneen mm. fudul daal foofu la ñuy topp topp sira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te léegi bokk nañ koog ñëpp ndax gis nañ ne nekkatul mbiru bàyyi ñes ndax mm. ñëpp bëgg lu baax mm. bërëb ba day fees dell ndax ku wóolëre wante la ak nitu diine yëpp waaw ñëpp nga fay gis ñëpp ñépp ngay gis ci bërëb bi euh, moo tax daal alhamdulilah waaw luy jëriñ daal bépp ndaw la waaye itam mucc mu ngi ci waaw 31 décembre daal bésu sànku la ci ñu bëri waaw lu ne ngay gis mhm. waaw moom nag mu pare nag pour gis boobu mu defar ko mu nekk bis bu baax luy jëriñ ñëpp daal mhm. waaw macha allah mu nekk sa kàddu gu mujj rek waaw xanaa gërëm leen <laughs> ak di leen sant mhm. ak di woowaat ñëpp nag ñëpp ni ko cheikhul islam waxee rek inna xadrata muhammadi ajizun an muqalafati amrillahi kama anta ajiz an tayraana fi jawfi ila wasitati loolu toujours suma koy firi si baatin mm-hmm. da ngay gis dañ ne ci zaahir sax laay wax da ngay gis ñu ne xaddara yonent bi ah, lottu na ci mooy yàlla ah, nag naka ninga loote naaw ci jaww ji te amoo ay laaf maanaam toog ci bërëb yooyu boo ci toogee mucc nga waaw parce que mënatoo mooy soo fa toogee waaw kon yoonu mucc mooy toog ci bërëb yu mel noonu mm. waaw te yàlla dina xool ñu ne bis xool jotaay xool jaamu yàlla jafe ci benn bës mu xool benn mbooloo ne ah ñii de lii la ñuy def bës bi ñu ne yàlla kontaan ba ñu dootu leen jéppi mukk maanaam fa la ñuy jaaree am mucc waaw ba pare sax far yërëmaale ñu yërëmaale ñu ne àddina yëpp <laughs> loolu moo tax jotaay yooyu ñëpp ci war a jàpp ku si ñëwati tam war nga si jàpp waaw ndax léegoo-léeg na am jeexital fépp daal hmm. maa ngi leen di gërëm muy seen info hmm. waaw macha allah yàlla na dem ba nekk tele bu mag amiin jaay rasulilah sallallahu alayhi wa sallam leen gërëm waat di wax kullu amin wa antum bi xayrin <laughs> bonne et heureuse année mille vingt deux yàlla boole ñu tam ci mbooloo déwéni déwéni ni fekkee lii incha allah gaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma zalik alallah bi aziz wa axiru dawana alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam waaw sëñ bi tudd la euh, man la Moussa Cissé uh-huh. di président jamiatul muxtasimina bi hablillah ñu ngi leen di nuyu di leen dalal fii ci terrain bi. daloo delloo bi yéen a ngi waajal euh, événement bu mag muy gàmmu bi am sax 31 décembre. Mhm. Euh, wante teren dañoo gis ne da ngeen àndal euh, fi ko doon defee li ko fii ci terrain. Nord Foire lan moo ko waral. lu ko waral mooy ginnaaw ñaari at Covid yi bu ñu toogee defuñu gàmm ñuy mujjee def gàmm 2019 ginnaaw buñ koy mujjee def terrain Liberté 6 dañoo ñëw fekk. Euh, benn promoteur def ko terrain gazonné ren jii nag looloo gën a waral nag ñu déplacé ko indi ko fii ci Nord Foire waaw loolu sabab bi njëkk loolu la daal maanaam terrain bi ren dafa nekk en changé ñu def ko terrain gazonné euh, looloo waral ñu ñëw Nord Foire di gërëm population Nord Foire yi tàmbalee ko ci chef de quartier bi Pa Guèye Mbaye ak euh, mairie Yoff wax dëgg yàlla accueillir nañu jàppale nañu bu baax ba ñu mën a dal fi ñi pour mën a def gàmmu ren incha allah. waaw mm-hmm. ah, 72 heures événement est-ce xam euh, fan waaw ni ngeen ko gisee nii rek ñu ngi ci waajtaay ñu ngi tàmbali di def daas yi euh, suba incha allah itam ñu yeggali ko ak gannaaw suba am nañ yaakaar fii ak le 30 incha allah dina fekk lépp yem lu jëm ci bâche bi tante beeg yooyu ñu ngi itam séntu suñu ay gan yoo xamante ne ñu ngi jóge euh, ci ay gox yu fasanti Euh, ñu war leen dalal war leen euh, tatagal ba bésu gàmm gi incha allah ñu bokk wal ñoom mais ci wàllum organisation ñëpp a ngi taxaw pare ñu ngi ñu ngi si daal ñu ñaan yàlla daal ñu egg seeg jàmm incha allah rabi ba lépp yemb si jàmm ak salaam incha allah. ndax tey maanaam ñi xam ne ñoo nar a ñëw est-ce que communication bi jàll na. ba nga xam nga xam ne fii lañ jëm si directeur wax waaw wax dëgg yàlla gàmm euh, gàmm gi ren ji euh, wax dëgg yàlla nuñ daan communiquer sax mosuñ nga communiquer ak gàmm gi ndax li ko waral mooy changement de lieu bi def nañ communication si suñu différents sites suñu différents euh, si suñu plateforme mais aussi au niveau de la télé def nañ ko expliquer nañ am na sax benn spot bu ndaw bu ñu wane ci benn vue de drone terrain bi ak yan ak nga mën a jaar sooy ñëw ren jii képp koo xamante ne bàyyi ko nga par exemple Padois soo ñëwee ba échangeur foire bi rek di nga mën a ñëw accéder ci terrain bi bii fii moo gën a accessible sax daanaka mun naa wax ku jege ko parcelle jege na la day mel ni sooy dem rek yoon ngay dem bi lay yóbbu Dakar rek di nga gis terrain bu nekk ci pegg bi mooy Nord Foire rek boo booru jumaa ji macha allah bon wane nañ ko ci différents angles aussi tam su ñëwee tam aspect sécuritaire bi aussi li may wax rek dem nañ gis nañ mairie gis nañ sous préfet ñu accompagner ñu wax dëgg yàlla ak euh, gendarmerie Foire mais aussi tam ñun dinañ ko appuyer aussi ak euh, ñu fi nekk nekk sécurité benn comité sécurité bu nekk ci xadra bi dinañ jàppalante ak nit ñi ci wàllum organisation ci wàllum ñëw beek dikk beeg ak yooyu yëpp incha allahu rabbi hmm. xanaa di leen woo rek di leen woo yéen ñëpp di leen invité waat beneen yoon ci gàmmu gi ñu xam ne gàmm la waaye bésu gàmm gi itam dañuy comme chaque at depuis dix ans dañ nekk en collaboration ak waa CNTS centre national de transfusion sanguine ginnaaw bu ñu ubbee ak wàcce kaamil ak euh, ñaanal euh, Sénégal ñaanal Afrique ñaanal àdduna dañuy maye direct muy œuvre bu œuvre sociale ndax wax dëgg yàlla luñ gis rek mooy ñu bëri euh, dañuy soxla diret te day manqué depuis dix ans nag daayira bi daf ko ànd ak waa CNTS kon ñu loolu mooy bëccëgu gàmmu gi itam dina am exposition bu ñuy def sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ibrahima Niass ku xam Cheikh Ibrahima Niass xam ko ak euh, euh, tukkeem yu bëree jàngaleem yu bëree euh, ci diine ci tarixa ak yooyu yëpp te loolu yëpp dañ ko fas yéene wane itam incha allah dina am exposition guddi gi nag gàmmu la boo xamante ne comme chaque at rek xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim ñas yàlla na yàlla guddal fanam moom ak njabootu Cheikh Ibrahima Niass bi yëpp ak mboolemu kër diine yeeg ak nit ñu baax ñu nekk suñu réew. Euh, ñoom ñëpp moom moo ñuy jox tem ñoom ñoo ñuy jox tem chaque at ren jii bi di wa ma muhammadun ila rasulun euh, itam moom dina si waxtaan ak euh, ñëpp ñoo xamante ne dinañ jël kàddu ci ci ci guddi gi incha allah ci thème bi lañ fas yéene waxtaan ginnaaw bu ñuy waxtaanee itam si siira yonent bi jàngale ci yonent bi ci jaar jaaru yonent lu ñu ko alxuraan jàngale ne yonent bi jàngal nañ ko xisa yonent yu ko jiitu mm-hmm. ngir dëgëral ngamam te kon ñun ñii suñu nettalee si siira yonent bi dina am wax dëgg yàlla lu mu def si ñun te loolu lañ bëgg partager ak ñëpp incha allah di woo ñëpp di leen ne ñu ñëw invité na leen ku am carte ak ku amul carte yëpp xam ne gàmmu gi sa gàmmu la invité nañ la ci bés gi waaw lii daal moo doon suñu kàddu di leen wax asalaamaaleykum